parce que tur yi nekk fii sunu maam aadama moo ñu ko donnale mais amul ci benn tur ci al asmaau bu man réagir te fekkul al asmaau joxuñu ko ordre ba noppi donc asmaau aadam yi ci suuf la contrôler mais al asmaul aliya yonent bi moko contrôler contrôlé waaw tax ngay gis alquran sens bi muy jox waxam boo teeyul rekk àdduna tukki ku day ni sunu boroom ak ni nga ko xame li mu yor ci ay malaaka hmm. mag ñi jàmpaar lañ li mu yor ci ay malaaka malaaka yu taxaw te duñu toog mukk ndax di def tasbiya malaaka yu sëgg te duñu siggi mukk di def tasbiya malaaka yu toog te duñu jóg mukk ndax di def tasbiya malaaka yu sujjóot te duñu siggi mukk ndax di def tasbiya ëpp fukki yoon ak juróom lii nit ak lii jinne ci kaw suuf looloo tax bu ko yàlla ne wa faddalnaahum ala kathirin malaaka yaa tax wa faddalnaahum ala kathirin mimman xalaqnaa ndax li malaaka yi rëy rëy rëy yëpp ñoom ñooy nekk ci service su nit waaye nit du nekk ci service su malaaka kon nag yàlla ak ni mu toll bu wàccee téere bi mu wàccee ñu koy wax alquran mu ubbi rek def faatihatul kitaab muy juróom ñaari aaya mu pare ci fatihatul kitaab ak teg ci benn saar amul lum ko tudde lu dul suuratul baqara fatihatul kitaab nga jàng ko ak ni mu ree bismillahi arrahmani arrahim الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ولا ناحية أنني مالكي ولا ناحية أنني ملكي يوم الدين دنجو بن ديف مالكي موكاي بوك اك نينين آه. ndax kon bu boobaa bu yàlla nekkee Malik nit ñëw nekk Malik du am sens daa ñu def ko maliki rek mu gàtt maliki yow mi diin kon nag iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in waay waay yaa baax waay ihdina sirata al mustaqim ko sax nag xaw ban la waaye am na ñu ma xam noo xam ne bu ma sañoon fu ñu jëm ma jëm fa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 Ah, wolof wolof mooy wax ni ku am gan yokku reer ah. moo mel ni sunu mbokku bopp di Souleymane Ndéné Ndiaye nekk premier ministre mu ngi ànd ak sunu mbokku bopp Maître Medikenyan, du ministre d'État, du ministre de la Justice. tabarakallahu mu ak sunu mbokku Bok, di sunu wóllare di sunu goro di colonel Malik Cissé wa yëgle woon ni dafa bëgg a ci daara ji ñu di ko dalal jàmm di ko nuyu di nuyu itam délégation bi mu àndal yëpp wa tabarakallahu yaakaar naa yéen ñi miin daje mustarshidiin wal mustarshidaat rawatina ca Guinée xam ngeen ni moom mi du tey la masa teewe sunu daje daje bu ñu masa am foofa ca Guinée mu nekk meeru Guinée taxawu na daje ba ba noppi teew fa wax fa it wax yu rafet yu jëm ci dayire bi mu mel ni kon nag bu yàlla dogalee tey ah mu def yitt bu toll nii ñëw teew si fii ànd ak ñi ma tudd léegi te ñu di suñu bokki bopp di suñuy wëllëre Nous sommes ko Nous l'aura fait l'aura fait avec le rafet Nous le ren édition ak Pour bu université du Ramadan c'est la première fois un premier ministre déplacé pour faire ci université man fi may seetloo nit dafa bokkul ak fi ko nit ñi di seetlu man ku ñeme dëgg rek ma sax te dama seetlu fan yi ak affaire inondation yi am mu war a jóg pour dem seeti barab yi mu am ma dégg ni renseignements généraux yi dañ ko ne bul dem ndax boo demee nangam nangam nangam nangam